je vais me retourner du côté de d'Alpha Dabo yow vous êtes spécialiste de la petite catégorie euh, on a parlé de manque d'efficacité est-ce que nekk na looy dëggal et puis moo ko mën a expliquer comment est-ce que vous analysez la prestation des des des kii nan nga jàngatee bokk prestation wu U17 d'abord di rejoindre euh, le président Yaya ci analyse bi mu def parce que tout Sénégalais vraiment boo nekk sportif seetaan match bi. nga perte ko ni euh, je peux dire que doo añ mais derrière euh, li ci am solo mooy euh, en tant que technicien dangay xam ne c'est c'est benn étape la importance ci xale yi ci seen évolution ak seen màgg parce que défaite yu mel nii mooy màggaloo joueur donc je pense que aujourd'hui féliciter la fédération sénégalaise de football et l'encadrement technique qui aujourd'hui a bien travaillé ba équipe nationale yi mun a ñëw ci catégorie yooyu noonu ci compétition yu mel nii alors aujourd'hui je pense que à ce niveau des enfants de seize quinze ans am expérience bi frotté ak ay équipes yu mel ni France malmené leen perte ci ay détails je pense que loolu du def lu dul renforcer seeni capacité ak seeni expérience surtout sur le plan mental pour les échéances à venir maintenant l'autre aspect c'est quoi c'est que nag bu ñu demee ci ci ci ci ci wax football d'abord ñëpp seen responsabilité day engagé wu muy techniciens yi surtout ñun ñu nekk au niveau de la base gën a war a ñaaxaat xale yi gën leen waxaat lan mooy enjeu wu compétition de haut niveau pour préparer leen dans les détails lotu aspect mooy sur le plan de l'efficacité parfois nag équipe dañ koy tënk ci benn joueur malheureusement mu nekk loo xamante ni effectivement tendance la bu nekk sur le au plan mondial aujourd'hui nous on a joué sans Amara Diouf qui aujourd'hui représente je peux dire 60 pour cent de notre équipe parce que tout simplement effectivement psychologiquement Amadou Diouf quand il joue toute la défense je peux dire au pour cent voilà 60 pour cent de cette défense là dañuy gën a concentré wu ci moom ce qui fait que dañ suñu yeneen joueurs yi ñu am dinañ mën a feeñ et puis sur des coups Amara peut tuer un match donc je pense que aussi yooyu c'est des faits yoo xam ne bokk na ci li tax ñu perte suñu match bi je pense que aujourd'hui comme li ñuy wax nag le travail va bu ñu ñëwee dañuy ñëw ñu toog la direction technique nationale waxtaanee ko càmbar et puis nag du doon ci catégorie bii rek du doon ci échéance bii rek am na yeneen échéance yu nekk suñu kanam war nañu xool aussi exactement est-ce que Sénégal on produit des attaquants on produit des tueurs est-ce que réellement les tueurs sont utilisés est-ce qu'on les mais dans les conditions pour vraiment wane seen seen seen exceller wane seen i talent est-ce que aujourd'hui effectivement sunu championnat yi est-ce qu'on met des voilà un peu loolu pour man jàngat la boo xam ne dans un cadre global d'autant plus que su jeunes yi ils sont pas encore partis en Europe donc je pense que foofu liggéey bi amaat na solo te les éducateurs sont interpellés au niveau des écoles de football comme les techniciens dans les catégories supérieures